salaamaaleykum mbokk internet yu bakkan TV maa ngi tax ak sama xarit Leyti duñ ko gis loolu fu ne wër naa ko waa Sénégal kii wër naa ko fu ne xàmmee ngeen kanam bi mais dafa jékki-jékki rek ne bés réer kenn mënu ko gis tey nag may dox TNG ba daje moom si xob bi fii tàjji ko fii bu bëgg génn ma ne ko maa ba ñuy bëre tey nag maa moom ñooy nar a bëre fii bëre bu neex waxtaan bu neex Leyti nuyu naa la lu bare bare Iba maa ngi lay fay di la ziar <laughs> di mbokk internet bi bakkan TV yëpp. Ah, merci di la wax le ne na gars yi yokk a abonné. comme ça affaire gën a jaar yoon. jërëjëf maa ngi leen rek. sant rek sant bu baax a baax. sant bu baax a baax waaw mais keroog yaa gis nga combat bi arène nationale combat bu mag premier janvier Balla Gaye 2 Boy Niang. dëgg la nan nga jàngatee combat boobu ak lan nga si gis. waa d' abord. Ah. di sant promoteur bi bu tëgg. mooy Gaston Mbengue Gaston ah. production. waaw ak membre staff yu mu àndal yëpp mm. di leen ñaanal jàmm. waaw euh, di ko ñaanal itam. wax dëgg yàlla yàlla oyofal. ndax damaa dégg ne dafa xaw a tawat. waaw yal na ko yàlla wéral. amiin amiin yal na ko yàlla wéral lañ koy ñaanal. di wax ne premier janvier boobu noonu aussi comme nañ ko xamee rek. Ah. date historique la. date kon bu ñu seetloo ci taarix. yi lu neex rek moo ci musa a am le premier janvier. Yékini Tyson. Yékini Tyson. ndeysaan Tapha Gueye bëri na ci. ndeysaan donc. Euh, wax dëgg yàlla daal. Ah, ah. date historique la. boo xam ne. dëgg yàlla saa yu ñëwee rek. waaw tous les amateurs de lutte sont servis. waaw. noo jàngatee combat bi. waaw combat bi nag euh, wax dëgg yàlla comme ni ko ah wala bokk man ni ma ko jàngatee. la la laa mun a wax. waaw wax dëgg yàlla dara bettu ma. dara bettu dara bettu ma wax dëgg yàlla parce que. Mm-hmm. vu pression yi nga xamante ni moo nekkoon ci deux yi. waaw bu ma jàngatee seen i combats précédents. Mm-hmm. Euh, seen i combats yi nga xamante ni ñoo jiitu. waaw donc euh, dara bettuma ci daal. dara bettu waaw wax dëgg yàlla.

mais mais ñëpp nee nañ surprise la ba Boy Niang daan Balla Gaye. non non non yow ci seen âge rek. la wax dëgg yàlla nag. il doit prouver. wax dëgg yàlla. il doit prouver ci mm. côté. maanaam âge. waaw ci côté. maanaam comme li ma la wax les yi nga xamante ni ñoom ñu nekk ci ginnaaw. nan nga gisee Balla Gaye 2 moom. bon Balla Gaye wax dëgg yàlla. Euh, man day wax dëgg yàlla sportif laa gis ah. waaw bu dee dafa am nag lu làqu ci ginnaaw loo xamante ni itam nag kenn mënu xam. waaw peut xëy na. mais man moom wax dëgg yàlla j'ai un athlète boo xamante ni wax dëgg yàlla ñëwoon na taxaw pour combat. wax dëgg yàlla et son objectif c'était que mu daan booy ña. waaw kon yow gëmoo ñii di wax ne dafa blessé wala dafa def nii yaram wala. waaw bon blessé mun naa am. waaw parce comme li ma la nekkul loo xamante nit mun na ko gis de vue. waaw man mii di wax ak yow mun naa feebar doo ko xam. doo xam dëgg voilà mm. euh, bu doon blessure boo xamante ne dañ ko xëy na mu mu métteeg yooyu. waaw nga a xam ne fii dafa enflé wala daa sox wala daa def mm. na am par exemple benn maladie interne. waaw de toute façon lu mu ci munti doon. Euh, yal na ko yàlla wéral. nu mu bëree d' accord si ni Balla bëree. waaw Balla ni mu bëree d' accord naa ci. parce que xam nga Balla comme li ma la moo li ci nekk. bu ñu fàtte ne Balla wax dëgg yàlla itam nag c'est un champion. comme li comme li ko mën a waxee. dëgg la nag xëy na bésu ñàkk moom. mu mm. ñëwee. Mm. maanaam daanaka xel yëpp ñoom ñooy jaxasoo quoi. Mm. mais ñu bëri d'accord ñu ne mu bëree. ah man de xamu nañu bëggoon mu bëree. parce que xam naa ne. waaw déclenché na ay hostilité. waaw ñu ñamante tuuti. mu wàcc jël tànk. waaw waaw nag. loolu la am. lamb dafa am bëri dóor. am am wax dëgg yàlla aussi lutte euh, pure et dure. dem na jëli tànk bi. waaw ah. sa waay xaw ko dóor mu wàcc. waaw moom Balla da ko dëj xëy na peut-être fa mu jàpp moo xaw a kawe rek. a kawe mais comme ni koy waxee rek am na foo xamante ni bu ko jotoon. Mm-hmm. dana xaw a compliqué ci boo ñaaw. mais bi muy jël tànk bi. Mm-hmm. boo ñaaw boo xoolee pensé wu na euh, tuuti gën koo gën ko jege ba nga xamante ni maanaam bu ko dëj itam kii daal du du du mun a dëju donc ci la ko dóor donc euh, mu wàcc mm-hmm. mu mu jàpp te xam nga boo ñaaku ne xam na ne aussi loolu forum la quoi plaquem boobu noonu du loo xam ne day compter un deux trois doog dem plaquem boobu noonu dafa automatique donc euh, ku dul Balla Gaye sax bu la defee noonu suuf nga jëm eh, ah oui gisee ëllëgu Balla Gaye da bon man daal li ma ci gis mooy na dem gën a defarwaat ñëw rek. na a ah Balla xale la. Uh-huh. xale la xam nga ku ñuy wax ne 36 ans la am aussi. bu ma déggee nit naan dafa war a bàyyeeg dafa war a def li do xam nga nit ñi aussi xam ne gis nga bëre. Mm. lamb mm-hmm. ah bëre. soit daan wala nga daanu il faut qu'il wala boog moom match nul dëgg la ah mm-hmm. ku mel ni buy match nul mm-hmm. fu mu match nul dana jaaxal ñëpp donc daanu wala daan rek mun def ko ëllëg bu Boy Niang waaw booy ñaa moom li ci nekk ci kanam yaakaar naa ne yaatu na. li ci nekk ci kanam yaatu na. donc lii confirmation bu wecc la. boo xamante ni wax dëgg yàlla <laughs> dafa war a continuer carrière am. donc ubbil na ko ay buntu yu yaatoo yaatu yu bëree bëri la. Mmh. nan nga gisee a baax pas vous dire kan moo gën a baax forme. parce que <laughs> yooyu dama si mën a àddu trop trop. mais daal xam naa mmh. le jour yi wax dëgg yàlla gis naa ñaari athlètes yoo xamante ni. Mmh. yu taxaw la. ku nekk bëggoon ngaa daan sa morom loolu moom man man xam naa ko quoi xam naa ne Balla moom hmm. bu sañoon mooy daan hmm. waaye boo Niang itam hmm. bu sañoon mooy daan donc moom la yàlla may ndam yàlla na ko jig ana rëg rëg rëg mu ngi ci biir rëg mu ngi waaw mais ma dégg da ngeen séparé wu loolu am na euh, non rëg mu ngi ci biir ñun ñoo ànd yéen waaw ah mais caay coow li bari na yéen ñaar da ngeen séparé est-ce nga ko leeral. waaw pour une bonne fois nit ñi xam lan moo xew sa diggante ak. waaw non jam ak salaam moo ci xew. lan moo xewoon. non leneen xewul leneen dara xewul. <laughs> kon yaay agent Reug Reug léegi. dara dara xewul. dama bëgg xam ndax yaay agent. Ah, Reug ah. waaw. te am na lu ñu bo li ay contrat bu ñu indi ko. Ah. waaw. kii mais mais coow bari na woon na temps yii passé. waaw lamb ak coow lamb dafa baaxoo coow. la mo la boole ak sa boy non dégg li ma la wax dara xewul dara xewul dara xewul on est ensemble ñoo ànd Wow. Iya, a ànd waaw yéen a àndaan ay Dubaï ak Philippines ah mais oui ak Wow. bi waaw waaw mais ngeen Wow. 5 mars waaw di ñaan yàlla ah. ah, eh, rek Balla Gaye 2 di ñaan yàlla mu may ñu ndam rek si liggéey lu leen ah euh du ma wax sax rek waaw waaye

wax dëgg yàlla di leen sant ñoom ñëpp. Mm-hmm. waaw di gërëm aussi ay papam. nga xamante ni wax dëgg yàlla. Mm-hmm. ñu ngi def lépp pour affaire yi gën a yemb. ah comme nañ daan préparé rek. Mm-hmm. ñu préparé ko ñaan yàlla subhaanahu wa taala mooy ñu dem lu set guy. kon coow li Reug Reug ak ak ak Leyti jeex na. non <laughs> tàmbali woon na ko noonu. ah loolu moo <laughs> <laughs> non dafa tàmbali woon lu tàmbali woon mooy jeex nañu ba. Ah. <laughs> waaw mais amoon na ay tuuti ñagas ñagas. <laughs> déggoo li voilà. waaw loolu loolu. li ma la ko waxee rek mooy li ci nekk. waaw maa ngi ñoo ànd. gis nga ñu barki démb ci làmb ji peut-être xanaa yow da ngaa nekkoon ci suuf. waaw ñu ngi woon ci man dèjà. dëgg la waaw. nan nga gisee Sa Thiès keroog il fait peur wala. bon Sa Thiès du ma mun a wax ci moom lu bari ah. parce que xam nga comme du koo xamante dama koy jege trop trop nag. bëgg naa aussi mais nga ko keroog. bëgg naa non dama ko séen rek. dama ko séen naa ko xam naa ne kii mooy kii mooy na yëngal Reug Reug. waaw bon loolu moom ñoom ñaar ñoom ñoo koy waxante wala bu ñu taxawee ñoom ñaar. Ah. na ko ne wax ndax mun ngaa yëngal sa morom quoi. combat bon ñun amul ay combat yu ñuy jaral. Mm-hmm. ñun moom lamb ji. Mm-hmm. ah grosso mm-hmm. modo maanaam neel A ba Z. waaw lu na ci biir. Uh-huh. ni ñu préparé ah ba Z. lu A B C D lu na ci biir yëpp noonu la ñu koy préparé. waaw moom comme li may wax rek. Euh, ñun peut-être fi ñu jaar. wax naa ko ci benn euh, kii temps yële. nee naa leen il faut ñu xam ne rëg-rëg.

amatuñu adversaire bu ñu préparé ni wala bu ñu préparé na manam tay bu lamb soppé ko won bu ñëwé ci biir géew bi dëkkante bu ne tak ngeem ñu bëré itam xawma ma paré wu waaye rek moom ko ne xam na ne pare dama gis keroog rek rek and ak Boy Niang 2 doo leen bëré Boy Niang wala non dégg nga Boy Niang sax ni mu ko waxé loolu moom mënu ci wax mais man mi itam xam sax dama ci mëna wax dara dama ci mëna wax dara xam nga xam nga gis nga nak duñu bëré loolu loolu c'est trop dur sax. ñaari xale. Hmm. yuy wut xaalis. waaw ku ne yor say waajur. war leen a teral war leen yóbbu màkk. Ah, hmm. war a tabaxi kër war a jënd oto war a hmm. teral say mbokk. ñaari xale. c'est trop dur sax nga naan leen du bëre. kon boole xamante xamante xamante bi du du kii nit ñi mënuñoo nag di xoolante en chien de faïence. mbër yi quand même aussi. ay ay ay tur lañ yor yor ay sant juddoo Sénégal. dëgg la ma ne boole na leen. ah bon bu boleh lamb boole rek danañ danañ bëri ah. danañ bëri waaw. mais léegi kontaan naa. jërëjëf Iba di la sant bu baax a di profito di nuyuwaale Moussa Fall di ko big up. Moussa Fall Moussa Thiès ok Moussa Fall Moussa Thiès. waaw di nuyu ñoom la jàng gaa yëpp ah. ndeysaan waaw la jàng bu taay nga. waaw ah ba day jàpp ci affaire yi. non yow non xam nga yow sama diggante la kamu du ah, question ay kamu. ak yooyu. dëgg la dëgg la <laughs> mais merci la ñag xam nga sama diggante moom. dëgg la xam nga sama diggante waa Pikine sax laay wax. loolu xam naa loolu. ak Ama waaw kon nuyu Ama ak ñoom Góora. waaw Góora ah? waaw ñoom góor a le président des amateurs. des amateurs